di len nuyu di jital ci nuyo bi sunu khalifa yu bax yi wa fi muqaddimatihim cheikhna cheikh muntaqa mahmoudul bashir mbàkke yàlla na ko fi yàlla bàyyi lu yag yagg mu ànd ko wér di jital ci nuyo bi itam cheikhna cheikh aboubacar mansour si ñom ñi ñaari khalifa yi xalifa yi tariqa tijani tariqa murid tariqa tijani yàlla fi yàlla bàyyi ñoom ñëpp ñu yàgg fi loolu te wér di jaarale ci ñoom nag nuyoo bu jëm ci mbooleem al xulafa xulafa al al al marakis diine ya fi Sénégal di nuyu itam sunu mbokki daara yi ñi nga xam ne ñoo jiite rabitatu al madaris al qur'an ci Touba Serigne Bachirou Habibou Mbacké léegi la ñu jokkaloo ci téléphone di nuyu itam ñi nga xam ne mooy Serigne Adama Seck moom mi jiite fédération daara yi.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 mu moom ak parant xale ya ak mu ngoog paraaw yi xale ya way jur xale yi ñu jo jéng mu ngoog loolu bu nu ko dendalee ak li sayidul wujud sallallahu alayhi wa sallam wax ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu yonent bi nee na ñi gën ci yéen ñooy jàng alquran ak di ko jàngale loolu la yonent wax sallallahu alayhi wa sallam gën ci yéen ñooy ñi jàng alquran ak di ko jàngale kon nag ki nga xam ne kii moom dafa jàng alquran di ko jàngal ay xale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 لولا أموت صلاة لولا أموت صلاة وعندك نيجا خمني نيجا أسرتي نيوم لا بقول نسات لو ني أمنا ين جفلنتي نيو خمنا بنيكو جفلنتي نون سرين داري داي دالجي نورو أب إكار أب إكار بنيك ديجنتي نيجيته أك نيو باري ني أب سخلا وقتي نيجيته سنغال أي جلت لين دانيو غم القرآن